dellu see ci noonu. bu dellu see ci noonu. xew-xew bu dellu see ci la. fàttali rek la. borom bis bii. borom bis bii. lu mu am. li mu am. lu mu lu mu am. lu am. ngëm moo ko ko may. moo ko ko may. dafa teel a xam. li suñu borom wax. li suñu borom wax. man la xad karam naa bani aadama. wala xad karam naa bani aadama. da koo teel dégg lool. da koo teel a dégg lool. waaye moo xam ne lépp. waaye moo xam ne lépp. ci ngëm lay mën a dunde. ci ngëm ci lay mën a dunde. ci lay mën a sottee. ci lay mën a sottee. moo tax. moo tax. bisam bisam bu rëy bii. bisam bu rëy bii. ak xéewal yi ci yi ci yi ci jóge. ak xéewal yi ci jóge. ngëm rek ko may. ngëm rek ko may. kon. mu kon. dafa mel ni kon xamal nanu dafa mel na kon xamal nanu li ci am solo. li ci am solo. suñ suñ diggante ak sunu borom. suñ diggante ak sunu borom. kon war nañoo xa xalaataat bu baax a baax a baax. kon war noo xalaataat bu baax a baax a baax. wala gëstuwaat bu baax a baax ngëm. a gëstuwaat bu baax a baax ngëm. war caa def suñu yitte yëpp. war caa def suñu yitte yëpp. Eh, lépp lu naqari suñu bopp. lépp lu naqari ci suñu bopp. wala mu naqari suñu diggante suñu boroom wala mu naqari suñu diggante ak suñu borom. ngëm gaa des. ngëm ngaa des rek. amee. ngëm bu amee. topp rek cee tegu. topp rek cee tege. ak wattandiku tere. ak wattandiku tere. bañ li yàlla suñu borom bañ ci jaam ci ci jaamam. bañ li yàlla bañ ci ay jaamam. li yàlla bañ li yàlla bañ ci aw jaamam. li yàlla bañ ci aw jaamam aw li yàlla bëgg. bëgg. ci aw jaamam ci aw jaamam kon mu ne kon lu xewati lu xewati ngëm gee des rek ngëm gee des rek lislaam lislaam yàgg na lool yàgg na lool yàgg na noonu yàgg na lool yàgg na yàgg na lool yàgg na lool te gannaaw bu sang bu baax ba ba mu wanee ba mu liggéey ba woon woon gannaaw jaam ñi bu baax ba ba mu liggéey ba woon gannaaw jaam yi diir bu gàtt ci diir bu gàtt lépp soppiku lépp soppiku dara waralu ko dara waralu ko ngëm ko de fekk la ngëm ko de fekk kon mu kon ku ne ci nun na dellu ci boppam na dellu ci bappam seet diggante moo ngëmam seet diggante moo ngëmam lu lu mat def yitte la lu mat a def yitte la ndax fu fu jamono ma sa toll fu jamono ma sa toll yàqu yooyu yàqu yàqu yooyu yëpp yàqu-yàqu yépp mi ngi jóge rek ci ñàkk gëm mi ngi mi ngi jóge rek ci ñàkk gëm kon balaa dara sotti kon balaa dara sotti dañu gëm dañu gëm dëgg-dëggi ngëm dëgg-dëggi ngëm bu hadiis ba waxee ne boo defee waxee ne nit am benn benn ku gëm amul kenn ku gëm kuy sàcc kuy sàcc te wax su woowee mu nekk mu am mu am ngëm ci waxtu woowu nekk booba amul ngëm ak kuy def beneen safaan ak ak kuy def beneen safaan dafay mel ne ngëm ngaa wérut booba de mel mel ne ngëm ngaa wérut kon nanu dellu ci suñu bopp kon nanu dellu ci suñu bopp gën a lu baax a baax gën a góorgóorlu baax a baax te nun tawfeex ju rëy am ndax nun tawfeex ju rëy ji nu am. muy am gënu am sëriñ bi. am gënu am sëriñ bi. lépp ngi ci biir. lépp ngi ci biir. dafa mel ne ngëm. dafa mel ne ngëm. boo ko boo dee seet sëriñ bi. boo seetee sëriñ bi. moom daf koo indaale. moom da koo indaale. ci tolluwaayam yëpp. ci tolluwaay mi ko ba mu mat ba mu ko ba mu mat sëkk gannaaw coobare sa borom def ci moom gannaaw coobare sa borom ji mu def ci moom jëfi ngëmam rek la jëfi ngëmam rek moom rek la moom rek la wér kon nanu góorgóorlu bu baax bu baax a baax lu dal lu dal ngëm gi wérul rek ngëm nga wérul rekk ndax bu ngëm amee ndax bu ngëm amee jëf rek ci topp jëf rek ci topp yoo xam ne yoo xam ne yittee ca jiitu yittee ca jiitu comme kon gëm moom jëfe rek la kon gëm moom jëfe rek la ni ki nga xam ne xam-xam jëfe la ni nga xam ne xam-xam jëfe la nga ma jiitu. nga ma jiitu. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. wax ji moom jarul guddal. wax ji nag jarul guddal. bu nu xamee ne. bu nu xamee ne. ba ba lislaam jógee ba léegi. ba lislaam jógee ba léegi. fi la yonent fi bàyyi woon alxuraan. fi la bàyyi woon alxuraan. fi la bàyyi borom xam-xam yi jëfe ci seen xam-xam. borom xam-xam yi jëfe yeneen yi seen xam-xam. def nañ lépp. def nañ lépp. te taxul mbooloo soppiku. te taxul mbooloo mi soppiku. te ñëpp yitam kenn ku ne jàpp nga sa bopp ne ab jullit nga. yooyu itam ñëpp kenn ku ne jàpp nga sa bopp ne ab jullit nga. jullit yi rek la ñuy wax. jullit yooyu la ñuy wax. te jullit bala moo wér. jullit bala moo wér. dafa am. bu nu xoolee ci sëriñ bi. bu nu xoolee ci sëriñ bi. gis ci lépp. gis ci lépp. gis ci njëriñeel ngëm. gis ci gis ci njëriñeel ngëm. nun mën nañoo bañ a am genn nun mën nañoo bañ a am genn jaaxle. ndax sëriñ bi. ndax sëriñ bi. jëf na lépp. jëf na lépp. jaar na fi ba wi. jaar na fa ba wi. nekkul musu nekk ci dara lu ci boroomam. musu nekk ci dara lu boroomam rek. loolu moom. loolu moom kon dëggal dëgg dëgg na eh, gën naa di jariñ. gën naa dëggal li ngëm di jariñ. kon li ci des lépp. kon li ci des lépp. lu nu ci mën a naqari. lu ci mën a naqari. ngëm nga des rek. nga des rek. bu ngëm amee nag. bu ngëm amee nag. yitte daal di am. yitte daal di am. Eh, càggante daal di dàqu. càggante càggante daal di dàqu. kon. kon. ginnaaw ngëm. ginnaaw ngëm. baatu diine rek moo ci topp. baatu diine rek moo ci topp. baax kon nu góorgóorlu lu baax a baax diine ji moo nu woon suñu digg ni lim suñu digg lim lim digal lim tere lim bëgg lim bëgg lim bañ ndax diine ji moo nu moo nu lim bëgg ak lim lim borom digle li suñu mu tere ak li mu tere diine nu koo xamal diine nu ko xamal diine koo xamal xamal ni li suñu borom bëgg xamal ne suñu borom bëgg ak li mu bañ ak li kon diine. kon diine. mooy dëgg. mooy dëgg. ginnaaw mënuñoo ñàkk eh, eh, ni ko suñu borom tënkee. kon mënuñoo ñàkk ni ko suñu borom tënkee. maanaam ni ko suñu borom tënkee. ni ko suñu borom tënkee. wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. wa maa xalaqtul jinna lépp a ci biir. loolu lépp a ngi ci biir. jaamu rek fi sës moo ci sës. jaamu rek fi ni ñu ko digalee. def ko def kem kàttan ci nim ci nim nu ko digale daw suñu xiru ci nu ko teree daw dem dem daw suñu kem kàttan ci nim nim nu ko teree góorgóorlu bu baax di suñu yitte yëpp ci bëgg ci bëgg ci bëgg lu baax góorgóorlu bu baax suñu yitte ci bëgg ngir bëgg lu baax ak di ko jëfe ak di ko jëfe góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax ci daw suñu xiru bakkan di daw suñu xiru bakkan li mu bañ ci li mu bañ suñu kem kàttan suñu kem kàttan nañu góorgóorlu bu baax. nañu góorgóorlu bu baax. bu ñu gisee doxeenu lislaam. suñu gisee doxeenu lislaam. ba agsi ci jamono ji ba agsi ci jamono ji nga xool jamono ji. nga xool jamono ji. nga xool jamono ji bu baax. xool jamono ji bu baax. setantal bu baax. setantal bu baax. Eh, dafa mel ne li nu suñu borom dégg di digal. mel ne li nu suñu borom digal. newuñu ci. nekkuñu dëgg la nag. dëgg nag. suñu borom moom noppi na ci lépp. suñu borom moom noppi na ci lépp. bu nu seetee bu nu sëriñ bi. bu nu xoolee sëriñ bi. nii nu li li ñu xam ci moom. li ñu xam ci moom. weesuwul gëm boromam. weesuwul gëm boromam. di ko jaamu ci wàllu yëpp. di ko jaamu ci wàllu yëpp. fi ko gisee ba mi ñu ko noppee gis. ba ni ko noppee gis. ci rek la nekk. ci loolu rek la nekkoon. sëñ bi nag kenn du ko séen. sëñ bi nag kenn du ko séen. waaye ndigal yeeg tere yaa ngi fi. waaye nag ndigal yeeg ak tere yi ñu ngi fi. yàlla bëgg ngi fi. yàlla bëggam ngi. li yàlla ngi fi. li yàlla bëgg ngi fi. li ngi fi. li bañ a ngi fi. kon ginnaaw sëriñ lépp. ginnaaw sëriñ bi moom matal na lépp. digle na lépp. digle na lépp. wane na lépp. wane na lépp. bind na lépp. bind na lépp. kon lu ñàkk ñàkk ñàkk solo. kon lu ñàkk ñàkk ñàkk solo. war nañoo góorgóorlu. war nañoo góorgóorlu. bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax. ba ba ba mën a nekk ay jullit dëgg. ba mën a nekk ay jullit dëgg dëgg dëgg. di taalibe yu dëgg dëgg dëgg. di taalibe yu dëgg dëgg dëgg. ndax. ndax. nit mënut a toog loxoy neen. nit nit mënut a toog loxoy neen. il faut que mu nekk ci dara. il faut que mu nekk ci dara. kon te dara amaluñu njëriñ. te dara amaluñu njëriñ. lu fonk suñu diine. lu dul fonk suñu diine rek. lu dara amaluñu njëriñ. dara amaluñu njëriñ. lu fonk suñu taalibe. lu dul fonk suñu taalibe. ak taalibe mooy def mooy mooy mooy defar lépp. mooy matal lépp. ak taalibe mooy defar lépp mooy matal lépp. mooy rafetal lépp. mooy rafetal lépp. mooy sakkanal mooy sakkanal lépp. mooy sakkanal lépp. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. nanu xantewoo doon kenn ku ne ci noonu. nanu xantewoo kenn ku kenn ku ne ci noonu. nam doon ay jullit dëgg rek. nun doon nun doon ay jullit dëgg rek. na kenn ku ne ci noonu. kenn ku ne ci noonu. na xantewoo. na xantewoo. doon doon jullit dëgg. doon jullit dëgg dëgg. doon taaliba dëgg. doon taaliba dëgg. foofu suñu dund gépp xëj na ci. suñu dund gépp na ci. buñ ca nekkee. suñ ca nekkee. mu ne su ko neexutu jaamu. suñu borom neexutu jaamu. waaye suñu xel dana dal. waaye kon suñu xel dana dal. ci suñu bopp. ci suñu bopp. ak ak ak ak diggante. ak suñu diggante. ak lépp lu ñuy yëg di ko di gis. ak lépp loo xam ne yëg di ko gis. muy tey muy ëllëg. muy tey muy ëllëg. loolu mooy moom moom moo ci mën a dalal suñu xel. loolu moo ci mën a dalal suñu xel. man mën a dund dund a dund amal njëriñ. mooy moo tax mu ne dund dund gu am gu nu amal njëriñ. ci àdduna si. ci àdduna si. te yaakaar dund ga gën a ga gën a ga gën a ga gën a yiw. te yaakaar dund gu gën a yiw. ci àllaaxira ci àllaaxira. nan góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax. ci li nu fi andi. ci li nu fi andi. jaamu yàlla rek moo tax mu bind nu. jaamu yàlla rek moo tax mu bind nu. andi nu fi. andi nu fi. di nu jaamuloo. di nu jaamuloo. kon nan góorgóorlu rek. ci kon nan góorgóorlu rek. ci lim nu fi andee. ci lim nu fi andee. sax ci jaamu yàlla. sax ci jaamu yàlla. suñu kem kattan. suñu kem kattan. na mu gën a selle. na mu gën a selle. na mu gën a nañ ci gën a jafe suñu suñu yitte. nañ ci gën a jafe suñu yitte. buñ ci defee suñu yitte yëpp. suñ ci defee suñu yitte yëpp. du nu wàññi dara. du nu wàññi dara. ci kër kër yi àdduna ji. ci kër kër yi àdduna ji. ñu nu yittewoo suñu bopp yittewoo ko àdduna. ñu nu yittewoo suñu bopp yittewoo ko àdduna. buñ ko yittewoo suñu borom yittewoo ko diine. yittewoo ko suñu borom yittewoo ko diine. kon dana am naflaayu tey ëllëg. kon dana am naflaay tey ak ëllëg. du am. jaaxle du am. fitna du am. fitna du am. ku ku ku kuy nattable loolu. kuy kuy nattable loolu. jërul ngay xool mbooloo mi ni ñuy doxee. jërul ngay xool mbooloo mi ni muy doxee. yow da xool sa bopp rek. yow da ngay xool sa bopp rek. kenn ku ne bu xoolee boppam. kenn ku ne bu xoolee boppam. na ca loola. na ca loola. mbooloom jullit day daal am. mbooloom jullit da daal di am. mbooloom taalibe daal di am. mbooloom lépp yéwén. lépp yéwén. benn ja ja du am. benn jaaxle du am. diine mooy dëgg. diine mooy dëgg. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax. sëriñ bi wàccoo na ak bi wàccoo na ni ko sunu borom bëggee. ni ko suñu borom bëggee. mu nekk ku ci mu nekk ku ci jaam nekk ku ci jaam yi. mu nekk ni mu ko bëggee mu war a nekk war a nekk noonu ci jaam yi. ni ko bëggee war a nekk ci jaam sëñ bi wane na lépp. sëñ bi wane na lépp. dara desu ci dara desu ci. kon nan góorgóorlu rek. kon nan góorgóorlu rek. wattandi kuy caaxaan. wattandi kuy caaxaan. caaxaan. caaxaan. amul solo solo. te mu wóor la ne nekk ci lu dëgg. te wóor na ci lu dëgg. caaxaan la caaxaan euh, di wax ne bu bu euh, gëm suñu borom amee. daal di wax bu suñu gëm suñu borom ame gëm alaxira am. gëm xaal gëm alaxira am. koo mën a doon. koo mën a doon. il faut que nga soppi doxin. il faut nga soppi doxin. waaye dëggam dëgg lay doon rek. waaye dëgg lay doon rek. gëm dëgg lay doon rek. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax. Eh, maa ngi sant ñëpp. noo noo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. Eh, topp ma kenn dara. nee na toppul dara. waaye bal mm, na ak ñëpp ñëpp. nee na mi ngi balu ak ñëpp. di gën a mm, feeñal sama yéene ci mbooloo ci ci mbooloo mi. gën a feeñal seen yéeneem ci mbooloo ñëpp nañ bokk balonte yàq. ñëpp nañ bokk balonte yàq. Mm, lii kaddu yi mu wax buñ buñ ca nekkee. mu ne kaddu yi mu wax buñ ca nekkee. kenn ci ñun du topp du topp morom ja dara. kenn ci ñun du topp morom ja dara. day ànd ak moom na mu war a ànd ak moom. nan ànd ak ànd ak moom day day ànd ak moom na mu war a ànd ak moom. nan ànd ak moom ni mu war a ànd ak moom. kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun digg ma morom ja digg ma morom ja bu ne bu ci lii bu nekkee ci lii day ànd ak moromam na mu war a ànd ak moom day dara dox ci diggante ba dara dox seen diggante lu aw yiw lu aw yiw ak dimbalante dimbalante dimbalante dimbalante wettilante wettilante soññante soññante loolu rek la ñu indi loolu rek kon nag kon nag noonu maa nan balonte ak ñun ñëpp ñun balonte ak ñun ñëpp ku ne kenn ku ne nga jublu ci sa bopp. nga jublu ci sa bopp. na di wax ne. nun nun nun sañ Kër nun waa Kër Sëñ Touba. joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu. joxe suñu bopp. waaye joxe suñu bopp gi. joxe suñu bopp gi. képp dama di képp kuy joxe. képp kuy joxe. la ngay joxe. la ngay joxe. nay lu baax. nay lu baax. kon nag nanu nanu ji joxe suñu bopp gi. joxe suñu bopp gi. nañ ci jiital dafa jóg ci suñu bopp. jiital jóg ci suñu bopp. jéem a defar suñu bopp suñu kem kattan. jéem a defar suñu bopp kem suñu kattan. day tax nu gën koo mën a joxe. day gën nu gën ko mën a joxe. day tax nu gën ko mën a joxe. kon nañu góorgóorlu bu baax a baax kon nañu góorgóorlu bu baax a baax nañu góorgóorlu ci suñu bopp nañu góorgóorlu ci suñu bopp jéem a defar suñu bopp jéem a defar suñu jéem a jéem a defar suñu bopp mooy tax nu gën a mën a joxe suñu bopp mooy tax mu gën a mën a joxe suñu bopp nu gën a mën a joxe suñu bopp nu gën a mën a joxe suñu bopp te fekk nu xam ne lu baax la lu baax la bëgg a joxe te xam ne lu baax la nga bëgg a joxe waaye joxe sa bopp waaye joxe sa bopp nekk ci sa bopp. nekk ci sa bopp. nekk ci àdduna. nekk ci àdduna. loo neex mel. loo neex mel. waaw loo loo bëgg a defee defee ko. loo bëgg a defee defee ko. noo bëgg a mel mel mel na noonu. noo ko noo bëgg a mel mel na ni. loolu du du du andik defaru. loolu du andik defaru. te kon nan góorgóorlu rek. kon nan góorgóorlu rek. suñ kem kattan. kem suñ kattan. lii lépp moom. lii lépp. soññe rek la. soññe rek la. waaye suñu xel dal bu baax. waaye suñu xel dal na bu baax a baax. suñu sëriñ bi. suñu sëriñ bi. mu war a def def na ko. lu mu war a def def na ko. te eh, jekku na mbiram. te it jekku xam ne. sàkk na ñoo xam ne. la mu bëgg. la mu bëgg. muy la yàlla bëgg. muy lu yàlla bëgg. ña nga ca. ña nga ca. teg ci seen tànk. seen tànk. sama mbokk yi sama mbokk jullit yi kon sama mbokk jullit yi sama mbokk taalibe yi mbokk taalibe yi ku bokkul ci ñoo ku seet sa bopp ku seet sa bopp te bokkoo ca ñooña te bokkoo ca ñooña da ngay da ngay da ngay xemee ma bokk ci ñooña da ngay xemee ma bokk ci ñooña waa këram ñooña nga xam ne waa këram ñooña nga xam ne moo leen defar moo leen defar bañ mel ni yàlla bëgg bañ mel ni yàlla bëgg seeni seen seen jeexit ngi fi te seen i jeexit mi ngi fi am na ñu leen fi nekkal itam am na ñu leen fi nekkal it am na ñu fi nekk ñoo xam ne am na ñu fi nekk ñoo xam ne la sëñ bi bëgg rek ci lañ lañ bëgg rek ci lañ nekk mooy la yàlla bëgg mooy la yàlla bëgg ci wàll yëpp nag ci wàll yëpp nag kon nag sama mas gi nga xam ne kon nag sunu mas gi nga xam ne adduna xas xas nañu fëkk adduna xas nañu fëkk te mel na ne adduna adduna am na am na ci ñun doole lool te it mel na ne adduna am na ci ñun doole lool day day day day àgg foo xam ne day àgg foo xam ne dootoo tal yàlla. dootoo tal yàlla. sëriñ bi. dootoo tal sëriñ bi. dootoo tal alaxira. dootoo tal alaxira. da ngay ci sa bopp rek. da ngay nekk ci sa bopp rek. ne ci adduna ji rek. ne ci adduna ji rek. jox adduna jàpp ne nga war a yittewoo yëpp mooy jàpp ne li nga war a yitte lépp yittewoo lépp mooy ak sa bopp ak sa bopp. fekk na gaay gaay gaayam yii mu fi bàyyi. fekk na gaay bii mu fi bàyyi. ku ci aw yoon wa ku ci aw ci yoon wa du ko yàqal daray du ko yàqal daray addunaam kon nag nan góorgóorlu xool ñooñu kon nag nan góorgóorlu ci xool ñooñee adduna ji wut adduna ji niy wut jëmale ko bopp jëmale ko suñu bopp buñ dóoru ci ci li ñu fi andi buñ góorgóorloo ci li ñu fi jaamu yàlla jaamu gu wér ca nañ ñu ko digalee nañ ñu ko teree ca nañ ñu ko digalee ak ni ñu ko teree nañ ñu ko bëggalee ak ni ñu ko bëggalee kenn ku ne ci ñun kenn ku ne ci ñun yàlla suñu borom noppi cërim yàlla no ci noppi na ci lépp suñu borom noppi na ci lay cërim lay cërim lu mu rëy rëy rëy lu mu rëy rëy rëy fu mu nekk dana ko fekk fu mu nekk dana ko fekk kon bu mu ko yàqal ak jaamu yàlla kon bu mu ko yàqal ak jaamu yàlla bu mu ko yàqal xalaat digg ma boromam bu mu ko yàqal xalaat digg xalaat digg ma boromam bu mu ko yàqal yittewoo boromam bu mu ko yàqal yittewoo boromam ndax loolu leneen lu mu war a yittewoo. leneen lu mu war a yittewoo. ci boppam. ci boppam ak ci àdduna. ci àdduna sunu gannaaw sunu borom noppi na ci. gannaaw sunu borom noppi na mu nekk dana ko dana ko fekk. nekk dana ko fekk. kon ni mu ko waxee rek la. comme kon ni mu ko waxee rek la. maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. jaamu yàlla rek. jaamu yàlla rek. moo tax mu bindu nu. moo tax mu bindu nu. andi nu fi. andi nu fi di nu jaamuloo. nu ko. kon. kon. nanu nanu nanu nanu yéene suñu bopp jàmm nañu yéene suñu boppu jàmm. buñ ko defee rek. suñu ko defee rek. nekk ci lan war a nekk. nekk ci lan war a nekk. ak li adduna ji ñuy wut. adduna ji moo ni daw da mooy daw fekki suñu dab dab nu. mooy daw dab nu. te duñu yàqal dara suñu diggante te duñu yàqal dara suñu diggante duñu yàqal dara suñu diggante alaxira duñu yàqal suñu diggante dara alaxira kon nag jërë ngeen jëf kon nag jërë ngeen jëf ñu sant ñëpp sant ñëpp di baalu ñàq baalu wàq ñëpp baalu wàq ñëpp di ñaan ñëpp ñu baloonte àq ñaan ñëpp baloonte àq góorgóorlu ci kanam bu baax a baax góorgóorlu ci kanam bu baax a baax suñu kem kattan suñu kem kattan jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf amma sulayman bisa ya almasih